maanaam mi ci ba léegi te incha allah euh, ñëpp seetaan nañ ko ndax nga gisee Juan Branco nu mu taxee jël loolu ne day porter CPI. man kay xam nga. Mhm. <laughs> Euh, Juan ci boppam mutu la xeeb. am na ñu ko fi xeeb ah. di ah. toog ci plateau yi di ko ci xeeb. waxu xeeb boobu nag. Mhm. erreur bu rëy la. Mhm. Euh, Guy Menga doon na wax. quelle que soit leur longueur, mmh. les oreilles ne la tête. D'accord. lu mhm. nopp gudd gudd du mhm. weesu tolluwaayu bopp. dëgg te loolu dafa am solo. Mhm. kon nag li ngay xeeb mën na laa gaañ bés. parce que CPI boobu mu ko yóbbu. foofu ñu kafuñu. te ils sont sérieux. Mhm. mënuñu fi nekkal àddina bi yëpp ci yenn béréb yi lépp lu fi xaw te te vraiment. Mhm. di sàmm euh, non seulement euh, àq ak yelleefu doomu aadama moo mhm. tax ñu teg ko CPI. donc di seetaan nit di faagaagal nit ba mu ñàkk yooyee nga xam ne yu mu moom la. donc lii gën mooy euh, fay lakk yi <laughs> parce que béréb di ne jékki-jékki rek ne jëppet mel ni daay boo xam ne di fi jékki-jékki du nekk ci àll bi <laughs> mu tàkk ba pare ñuy werante waa ku taal daay bi <laughs> ñëpp ferxo réero ñiy daw jëm fii ñiy daw jëm fii te taluñu safara si nga xam ne yi mi ngi nekk seen ginnaaw di ñëw parce que dossier yi mu yore yu dëgër këcc la Mmh. moom nekkoon na euh, CPI xam ne ni ñuy defaree dossier. moom waaw ba mu am maanaa ba nga xam ne nii yi du ko du moyu. Mmh. foog ñu jublu ko ci seeni i àtte moo métti. Mmh. parce que bu ñu la àttee bu tëj la ci dara dañ lay bàyyi dootoo tukkee si dootoo dem fen ci àddina bi foo ne bu rët dem fa dañu bàyyi ba nga yegg ñu jékki-jékki rek. jël la yónni seen kii rek. daal la jël nga ni waaw man du ma def. Mhm. fekk ne defu la. Mhm. wala defit la. ndax ba nga ko defee wees na. Mhm. te doo ko génte doo xam nan la ak naka la ak kañ la fu mu nekk. donc loolu noonu lay mel ñoom sëñ tëj euh, ba nga xam ne lu doon gën daal mooy fay lakk bi nga xam ni nii. maanaam daay bi nga xam ne nii. mais mais mais ñoom dafa mel ni comme ni nga ko doon waxee sànq Juan Branco lépp lu mu def rek ñoom dafa mel ni bàyyi ñu ko xel. non dañ koy xeeb. waaw am na ñoo xam ne mutu ko tolluwu ko. Mhm. boobu muy gaañ. mutuwu ko tolluwu ko ba am màqaama. Mhm. di yóbbu nit fii te mu nekkoon foofu te xam liggéeyu foofu nan la naka la. Mhm. ba pare ci liñ ko def Sénégal daf koy ëmbale ci biir. bu nasuwul sax dana ko nas. liñ ko refile woon. ak wëñ gu dëgër waaw. parce que li mu lëm ci ay nit fii. ñooñu ñëpp bu ñu fa demee bon dafa mel ni Sénégal day yeex bi mm-hmm. man di tour yi ma dégg tour yi ma gis boog liste bi ma dégg te gis ko vraiment en toute mm-hmm. sincérité bu ñu buubee ñooñu ñëpp yóbbu mm-hmm. ba ci njabootu président la day xaw a doy waar dëgg la day xaw a doy waar te lu ñu ko yéene yéene yéene. yéene wuñ ko loo xam ne nii day safaanoo que du ko du koy gaañ. parce que c'est un comme tout le monde. ndeysaan yaa fi nekk rek mooy euh, xaw dëgër bopp bi. <laughs> doo xaw dëgër bopp ko doon waaw <laughs> man li ma gis ci moom. Hmm. Euh, ma de lu ma seqaloon moom baal naa ko. baal naa ko très sincèrement. Hmm. vraiment ci yàqul laay taalaaw laa ko. jox ko baal. Hmm. naa ko. Euh, ma dund baal naa ko ma dem sil xabaar yi baal naa ko. Mm, mm-hmm. waaw parce que daal nit doo ko topp ba ci njombaxtal ba. Mm-hmm. mu mel ni cee aigri. Mm-hmm. wan nga kii yooyu nag. moom bu toppee moom bosam. ci dëgër bopp bi. ndax lu fa rëy. bañ ko gaañee mooy bañ koy wax naan ko. Euh, lam tooro buuru gede. waaw loolu moom bu fekkee ni xëyul ci bopp bi. ba mu mën ko taaw mhm. parce que bu yéen day yéen waale loolu. ngir bëgg rek di def lu baax am ci jëm am ci fulla. la sàll ngaari buur géré. waaw boo ne sàll ngaari buur géré. Mhm. te bopp bi àttanul loolu lu muy def day yaakaar day am benn poids boo xam ne. tegu ci moom te lu muy def. Mhm. da ciy bëgg a wane njàmbaar. xam ne sàll ngaari buur moo def lii. de leen ñu tere ko sax mu ne non non bàyyi ko rek daf may lii daf may lii daf may lii. te fekk yooyu amul solo. doo muñ ci àddina mu jeex. Mhm. te yàlla mooy def. macha allah euh, mais papa foofu laa yàlla di def moom. Mhm. defal ñu moom wala nga appuyer ko ci moo gën. Mhm. parce que ëllëg du añ du reer. wallaahi jarul la waaw. loolu moo wóor. d'accord xaar nañ pause après ñu continuer. Sall Ngaari buur gere bi dafa mel ni loolu comme ni nga ko expliqué moo nekk ci. waaw xam nga. Mhm. loolu bu fekkee ni bopp bi attanu ko. Mhm. Ah, mën na ci wékku indi jomam teg indi fulla teg. Mhm. indi njàmbarteem teg. ñu naan ko Sall buur bul gede. Sall Ngaari bul gede mu jënd bu defee tuuti sax nit ñi xeeb ko. da koy gën a doublé daal ne ah man mii kat li doy ko doy quoi. Mhm. Sànngaare Bourgadé bi nañ ko gën a wax ci kaw. Mhm. donc ci xam dafa ne naa gën liggéey pour ñu gën koo wax. d'accord donc su mattee. Mhm, du bàyyi. du bàyyi tànk daggul. Euh, ñi gisoon dafa demoon euh, France euh, doon doon waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekkoon mu ne incha allah moom mooy gagné 2024. amaana wax jooju noonu ku nekk ni nga koy jëlee ñi ngi naan est-ce que du confirmer candidature élection 2024 ñu ci des naan est-ce que tamit amuñu yaakaar que ni day jël ki nga xamante ne moo bokk ci ñi nga xamante ne ci moom pour mën ko teg ndax nga gisee li nga xamante ni sénégalais yi boobu ba léegi ñu ngi ci yéey di yàbbi. yooyu yëpp dafa mel ni mu mhm. taw. ngay wut yoon boo xam ni nii comme ndox mi fees na. Mhm. yoon wuy jaare leen ndox mi ak yooyu tekkin yi quoi. Mhm. parce ñu bëgg koo tekkee ci fu ne am na ñu ne ñu boobu moom ci la mhm. man dama yaakaar ne dafa feeñal boppam li ko nit ñi doon xaare mhm. wax na ko parce que même nuu boobu mhm. dugal na ci boppam te nuu boobu kum mën ci jagleel moom génnu ci parce que ci APR na bokk donc njabootu APR ñoom ñoo doon wax loolu mais rax ci dolli ñu fa taxawoon yëpp Hmm. du ñoom ñëpp approuvé approuvé loolu de wala bokk ci njabootu APR. Hmm. foofu mu demoon. Hmm. barki dem boo njaay man seetaan na fi mais li fa nit ñi fax génn bi nga xam ni wax nañ ni Sénégal ñi fi dee dafa bari ak yooyu. ñoom ñuy dox di ñaxtu. la génn ci kii bi ba foofu place boobu nga xam ni foofu la nekkoon. mais da waaru ci yàlla dafa mel ni ñoom seen bos bu ñu doon fayoo woon ni. fii it am nañ nit ko d'accord mais bokkuñu. fa mhm. génn moo foofu li ñu li feeñ. d'accord mais wax jooju ndax nga ko analyser. wax ci daal dafa fësal boppam. waaw parce que am na ñu nga xamante ne nee nañ. bu nee bu nee lu jaari ndaari. est-ce dafa bëgg am ku mu samp ci nga xamante ne ñoom ñoo la bokkal parti APR. xam nga nu affaire yi demee. Mhm. diggante ak ndambe. <laughs> diggante ñebbe ñebe ak ndambe xam nga ndambe ñebbe la. Mhm. ci xeetu ñebbe yi la. mais togg ba muy bañ koy toggee mooy indi ñu naan ndambe. kon diggante ñebeeg ndambe man xawma ci dara lu mooy. kii ba mu ba de ràcc ko ba mu feex. ma mën koo soos ak sama mburu mën koo lekk parce que tàngoor ba noonu. ñebe bu duggee ci kii. sa put day xotteeku de. ndax tàngoor bi. donc. jay bi mooy wax. Mm-hmm. daf ko war a jël rek taxan ko ba mu wóor. Mm-hmm. mu teg ko fale. xam ñi naan ñi koy wax naan yow yow yow bés bu nekkee ci mooma. Mm-hmm. mu indil ko jafe-jafe tey. nu muy demee ëllëg ñooñu di ko wax loolu dañuy taxaw yu fële. boo xam dañ ne moom la dafa dëgër bopp loo ko wax du dëgg waxoon nañ ko lii waxoon nañ ko laa Sénégal moo mel noonu. am na ñoo xam ni yàkkamtuñu lu mooy góor gi rëcc ba ñu ree. dëgg la mhm. mais est-ce que moom ñu ngi sóoraale noonu. Macky. Mhm. c'est un gars. Mhm. superbement intelligent. kaar kaar ma xala ma. macha allah sama xaalis xëy na laa bëggoon wax. il est superbement intelligent. Mm-hmm. d'un esprit de politicien mm-hmm. qui ne dit pas son nom. Mm-hmm. et ce dont il est capable dépasse l'imagination maa la wax loolu lépp mu ngi ko donnee maanaam nasub Ablaye Wade la ak moom xel mi ko yàlla may euh, ci euh, li mu bëgg a def naka lay jaar ba def ko xam bi nga nit ñi tàncee ci waxal waxal waxal waxal lu mu leen wax nii wii nii non mm-hmm. te loolu mu ko yóbbu ci tubaab bi mm-hmm. parce que xam na ni tubaab baa ngi nas pour loo ko mu ne leen nii wii nii non waxul leer daal waaw foofu lu ko tibbee maanaam daal da ngeen di sab sablu pour jéem a seet rek waaye eh, yëguma tinuma xaw ma mm-hmm. xaw ma ndagam dinaa wax wala duma ko wax d'accord daal ah. ci génn ci laaj boobu